dañu jëlaat beneen arrêté ne léegi danañ mën a yaatal circulation bu mu libre maanaam kenn du la contrôler ci région yi maanaam Sénégal fukki région la ak ñeent ñu ci fukk ak ñaar yi mën nga ci circuler librement tant que yaa ngi ci biir benn région boo nee ba war a génn région bi ministre de l'intérieur moo la mën a permettre nga mën ci génn Euh, waaye ki nga xam ni fii mooy région wu Diourbel ak région wu Thiès ñoom dañoo yem rek fan tolloon mooy maanaam coppite bi ci am rek mooy permettre nañ gouverneur moom mu mën a joxe possibilité euh, nit jógee ci benn département ci région yooyu dem ci beneen département waaye bu ko permettrewul kenn ku nekk si biir département nga yem loolu nag li ko waral mooy fi feebar bi toll ñaari département yooyu muy département wu Thiès ak département wu Mbacké principalement commune ak commune Touba. si wàllu yi war a delluwaat seen i diwaan ndax am woyofal yoo xam ne nii def nañ ko jëmle ci ñoom. waaw xam nga président daf ñu joxoon instruction nañu xool nañ jël mesures yi pour déjà waajal bitiwaat ak école bi le 2 juin. loolu nag mu war a aussi am ay déplacement yu bari muy déplacement jàngalekat yi nekk sax déplacement élèves yi suñ ci paree comme ni ko président waxee woon rek économie bi aussi bëgguñ mu taxaw te gëm nañ jàpp nañ ne aussi euh, fan yi ñuy jëm ruuj beeg yeneen yi war daal di war a mën a tàmbali euh, waaye déjà mesure bii ñu jël bii rek déjà am na solo ci baykat yi parce que bu ñu jàpp ne baykat yëpp dañoo génn région baykat yi peut-être ñu bari génnoon nañ seen dëkk yi demoon dem ci biir département yi wala dem ci chef des régions yi tey ku defoon sa région mën ngaa dem librement continuer say activités ku deful sa région ñu ngi xool naka la koy organiser te am na yaakaar ne bala yàgg dañ ci solution boo xam ne bii dañ ko mën a tënku ni ñu dem ci tool